السلام عليكم ورحمة الله مبارك إنتن يوسف بل تي في نين علم بباس يا خلين دي أم ميك تيساس نرفع لين فيديو دي لين رمي سي سي لايك مرف إنر ريتان مونيك إنسانز دين مي خمال من أستود بما يالا مي مجوخ لين كو أستمي مونيك إنسانز من أجيب xam nga lu bëri xamal ngeen ma ko man astut bi ma muslim partagé naa ak yéen mu ko doon def kenn benn tur ñëw en recevait, en recevait. Mais en recevait, mais il est extraordinaire, mon frère. Le match pro contre saint deux coups francs dégg naa bi ñu dalee commencé esthétique ba tey opta boobu noonu bi ñu dalee def ay esthétique ba tey trois jours ñoo ko def c'est pas Cristiano Ronaldo mais il est extraordinaire mon frère il est extraordinaire deux coups francs naka dagat ci kan am na ñu naan nag est-ce du Messi est-ce kii je vais vérifier après ak ñi naan est du Ronaldo def ko ak yooyu noonu <laughs> en tout cas dañ ne opta maanaam li ñuy joxe affaire depuis ñu créé

trois coups francs nga dugal ko nii nii nii taf taf mais ASC ba en forme laa wax en forme waxuma ASC ba nii di di ten defal de en forme Sénégal dañ koy woo en forme laa wax waxuma ne nag mu ñëw yor benn niveau bu des bu fekkee yor en forme Ligue 2 française Ligue 2 française bi xamante ne Aliou Cissé fa la doon woowee Joseph Lepi fa la doon woowee Moustapha naam bu fekkee ASC ba ak expérience bi nekk ci bopp bi rien que pour ces balles arrêtées yii nii nii rek c'est intéressant rien que pour ces balles nii rek. nga jaxlé corner coup franc saa tek jox ko gaay gaay xewlu gaay dañu xewlu han soit mu xel li def ko léwal gaay yi gaay na gars yi mu defal la deuxième bo soxla lool li gëna neex la lay tegal lé la lay tegal lé ngay tek bal bi dóor ko mu dugg kokoy henri sew franchement man j'ai toujours aimé ce joueur là xam nga franchement depuis mu nekk boy man ñu daan wax le nouveau Zidane parce que Zidane Bordeaux ñoo fa la nekkon euh henri sew fofu lañ ko formé mais extraordinaire xam nga tamit football parfois day changer quoi day changé ngay dem nekk mag ay soit de carrière parfois ay Turquie affaire yooyu noonu Newcastle ni moo ko rey quoi parce que fi mu au top fa la Newcastle te Newcastle ça, dugal na fa coup benn coup bu sori contre West Ham mu téye bi li mu si suuf fa mais mais c'est un excellent joueur dit euh, di en tout cas vidéo bi moo ko moom te les gars enregistré def ci vidéo def ci vidéo def naa ci vidéo ci commentaire wax leen ma les deux coups francs dugal parce que c'est quand même extraordinaire Gambien defu ko c'est pas même si Gambien suñu famille bëgg moon sax Gambien bëggoon wax Gambien Argentin defu ko Brésilien defu ko Français defu ko Sénégalais moo ko def ko xamante ne dafa muyoo la mayo ñu dem ba final Coupe d'Afrique malheureusement jëlu ko mais xam nga boo duggee woon si réseau yi si man maa ngi fàttali ko final bi photo yi mu dugg dañ ko mérité lu ñu liggéey la ak mbég kontaan quoi joueur sénégalais ñëpp bëgg a enregistré parce que comportement ak professionnalisme yi ñu wane bu ñëwee foofu ak nit ku xamante dafa yaatu woyof bu la fi làkkalee wolof nga ne déedéet kii ñun ñii sax donc man bu Mahmoud mooy kii moom tàggat boobu xam ñu mais bu wax laay mais attends comme ñun temps bi wolof donc chapeau à lui c'était pas évident de marquer ces deux coups francs xam félicitations mbokk yi maa leen jaajëfal di ba TV